94 Walfu Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem ko toppal 94 Walfu Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen woy leen di toppal 94 Walfu Sénégal Xaadim Samb Xaadim Samb nag dégg nañ ko mu ne ngooñ lay jaaye ak xar ak dibi ba nga xamee loolu lan moo teewoon nga yem ci loolu loolu lan laaj nga yem ci loolu li nga maîtrise woon nga bàyyi ko loolu gënul simple communication moo ne ak yomb te yéen xam ngeen ko man ngeen ko ndax yéen moom yéen daan ngeen ko def ci leen leen xam tamit communication tax ñu xam leen ndax yaakaar naa ni yow jaar nga ci ay rajo wala ay télé léegi nag nit ki li mu xamul nag bu mu ko bu ko maîtriser wul bu ko wax wala léegi nag comme dangeen a toogoon di caaxaane seen bopp ban dugal leen ci benn liste boo xam ne ni xamu leen lis liste liste léegi nag acca mu ngoog en tout cas daal lu ci mën a am réew mi ku ci mënta wax jàmm waxal li nga xam jàmm nag mooy li nga xam ne ni mooy li gën surtout nag yéen ñii bu leen dee xool wala ñu leen di bàyyi xel am na image bu ngeen amoon démb tey door a ñëw bu leen ko yàq waaye boo xoolee seen image su daaw moo gën image su ren ndax image su daaw moom xamees nañ ko mais image su yi moom yaakaar naa ne li ngeen amoon daaw yëpp image su ren yàq na ko ndax li ngeen di wax ren moom bokkul li ngeen daan wax la tax ñu xamoon leen la taxoon ñu leen daan topp lu tax ñu leen daan déglu loolu moom léegi wuute na nit ki daal limu mu maîtrise bu ko na ca na ca maandu xar yeeg ngooñ meeg dibi boobu nga xam ne maîtrise ko am nga ci xam-xam continuer ci te xam ne loolu la tey woote nag jàmm ci réew mi loolu mooy liggan ci yow mooy liggan gën ci réew mi mooy li ci képp koo xam ne ne ab doomu sénégalais nga waaye rey leen nangam ba tax ñuy jël sa tur dugal ko ci benn liste boo xam xamul lu liste liste ah loolu nag gis nañ nag alxuraan ji alxuraan moom kenn du ko kafe kenn du ko fawe xoolaatal téere bi yëraat ko voilà ma ne ko yëraat ko bu baax a baax a baax li nga wax waaw ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax.